quartier jàmmalaay nekk fële ci ñàgg bokk ci commune Tivaouane Peulh askan wa yeewoo ci boobule quartier tiit ak njàqare lañu amee ginnaaw ay taw yu baree bari moo waral seen quartier boobu fees dell ak ndox ñuy yëkkati ay kàddu di sàkku ndimbal ci autorité yi ngir ñu ñëw jàppale leen ci moomu ndox ni njaboot gi yépp ñu ngi ci biir ndox mi. yéen waa Rose TV ak yéen waa Croix man la Moustapha Niang maa ngi dëkk fii si ñàgga ah ñu koy wax ñàgga euh, olof ci quartier bu ñuy wax quartier jàmmalaay waaw ñun fi leen dëkk ci koñ bi mën a ñëpp koñ bi yëpp ñoo dëkk fii mais daal vraiment am na nañu naqar ak tis lool lool si ndox mi le parce que mën naan ndox mii nii ndoxum daaw mi mu ren dëkk fekk moo tax moo tax mu demee nii daaw bi nga xam ne ndox mi ñëwoon na vraiment metti woon na lool lool lool mais daaw meer joxoon nañu machine ah yenn saa yi mu jox ñu essence ak liñ ci liñ di ci boole. ma ren nag moom bu ñëwee fii dafa ni ndox mi fa mu ko doon yóbbu muy dër ba mënu ko faa yóbbu ndaxte bu fa yóbboo am na ñoo ñu fay versé kon day fees ta bu feesee day dem si yeneen kër moo taxoon mun ne amul solution bi solution bi mu am mooy fekkee ni mun nañ toxu. ah mu toxal ñu ba am 4 mois mu ñëw dindi ndox mi defaral ñu fii mais tamit xam nga fekkee da ngaa yor euh, benn kër nga nekk 3 famille 4 famille ci benn kër ñu bëgg leen a luyeel ak ñii ñëpp ku nekk bëgg laa luyeel ñun li ñu gën loolu mooy mu fexe li fu jël ndox mi soit mu defañ fi benn basin boo xam ne ndox mën na fa dem wala boog comme ñu defee yeneen carte yi indi fi ay camion jëm ko ngàcc jëm ko yóbbu mais loolu yépp vraiment amuñu si dara ah boobu léegi nag ñi ngi toog di xaar ba nii nii rek ñun waa quartier bi ñoo defoon euh, solidarité ku dugg koñ mu dugg fa ah ñu joxe ay dix mille ñii ay vingt mille ñii ay trente mille ba ñu jënd benn machine bu quatre vingt mille jënd quatre rouleaux laakool cent cent mille yëpp mi ngi ci biir fi nekk nii parce que fi nga doon versé dañoo mujj nii fii kat bu ñu versé bu yàggee dafay indone bi nga yóbboo dërëbët mi fi xam fa la ñëpp di sotti ñu ne ñu fii aussi bu yàggee day dem kër jàmbur yi moo tax ñu arrêté léegi nag amatuñu benn solution ah solution mooy yéen ñi nga xamante yéen fi nekkal euh, waa Croix Rouge suñu kàddu fa nga ne mënu fa ak ngeen agal ñu ko fa ngeen xam daal waa quartier bii moom vraiment sonn nañ lool lool xale yaa ngi fii guddi gi duñu naan ndox yooyu ah njaboot gi am na ay njul yi fi nekk ñii xale yi fi nekk nii kenn mënul génn man rek maay génn dem bés wuti besoin bi jërub luñu lekk wala dara ñëwaat te loolu tamit mënu ma si dëkk fu ma xale yi moom boo xam ne seen wax ma mag ñi am na ay jigéen ni ah dis nañu mën naa ne fi nekk nii kenn ki su ma juumul ay deux mois ay yoo ma ko dese wala keneen ke te xam naa ni agul foofu ñu ngi si biir tey jii sax ñoon sax bi moo génn tey fan la ñuy jaar tey ba génn ñoom fu ñuy jaar tey ba génn loolu parce que tey jii bu yàlla defoon tey jii ah ñu ah, ngi si mat ak lal foo foo leen jaar la ñun nag ba ñoo génn mais dañu amul fu ñu nekk war nañ location ba tay amuñu fu ne tey dama xëy sànq laa ñëw man a soxna si fu nekk dugg nañ fa mais amuñu sax benn bi am ñaar nekk amuñu dara fu ñu mën a nekk li ñu doon sàkk ndimbal daal mooy a ah, ñu dimbali ñu fexe ndox mi ñu ko fi jëlee ba mu set su mën set tamit mu wàññeeku ba xam ne daal il faut mën a jaar pour mën a génn ah nga xamante ni war nañ liggéey mën ne liggéey ñi nga xam war nañ faju ji mën a faju ji loolu daal moo doon sunu yitte ah bëggoon nag ñu jàpp leen si bu baax a baax a baax mais vraiment daal sonn nañu moom surtout nag yooyu moom guddi gi moom kenn nelaw kenn nelaw mais nag amuñu benn solution parce que suñu kër dong lañu am amuñu feneen suñu suñu kër muñu dem fen waaw boo génnee dem fenn foo mën a jëm waaw koñ bet bu nuy dimbale waaye kër yi kër goo dem ah lii la daal moo ko dal fees na del bu amul ndox tamit kër ga ni ngi dañoo fees na kon sax nii man la abal foo ma nekk maay kër mënu ko nga kër gii ne kër gii nii mais moom génn moom moom yàlla daf génn moom ba loolu ngi fa mu nekk moom beneen kër gii mais bi dafa dese de te ndox moo ko rey parce que doon génn bi muy génn moom presque daanu bi mu daanu avant ñu àgg fekk jël na ndox noonu la dese de muy benn mère fii si ma kër gi ñu jàkkal ñu ngi jàkkal sama kër nii waaw kër gi tamit kii bu nekk fii jàkkaarloo man borom tamit dama teel génn moom ah, a génn ànd ak dem waaye man moom vraiment moom mag sama njaboot gu sew dama trois famille lañu pour ñu génn génn noonu nag day métti ñun lool lool lool ak fan lañu jaar sax pour génn mooy suñu problème waaw loolu daal lañ amoon ci vrai eh, même jumaa jaa ngi nii julli moom kenn defatu fa léegi jumaa ji moom kenn mënatu fi jullee léegi ndaxte depuis mu taw taw bu njëkk ba léegi bu njëkk ba laax ba léegi de wala léegi mu ngi nii kenn mënu faa jullee amuñu fu ñu jaaba jullee ji fa côté bi ñoo jaar nii rek dem pour mën a jaamu yàlla mi ñun moom suñu néegi lañ koy defee suñu kër lañ koy defee parce que amuñu fenn nga a defee fu lu si néegi parce que muñu fa muñu fa àgg moo waaw loolu daal laa xamoon ni a ah, vraiment xam naa nag heureusement. ci ndox mi xanaa métti loolu yéen a ko gisandoo métti na de ñi fi dëkk suba ba ngoon kee du génn ndax ñàkk pexe mi ngi nii fii du ndox mu ñu naan du ndox mu baax lépp jaxasoo douche yëpp a jaxasoo. amuñu kenn ku ñu ci dimbale ñu ngi nii nawetu daaw amuñu ci ndimbal nawetu ren bi it ah ñu ngi ñu ngi toog de waaye gisagun dara yéen daal lañ fi gisagun waaw bëgg nañ nag kuñ ci jàppale ndax ay jaboot lañ te ñu leeroon ne bu ñu jëndee nii lay mel duñ ko jënd ndax kenn du jënd lu kenn du gis fu di ko jënd ñaaka xam rek ba jënd ko def ci sunu xaaj ba pare te sunu njaboot gi mi ngi nii mënuñoo génn mënuñoo dem fenn man damaa mujj jël sama njaboot bu bawal ñi ci des ñi nga xam ne tu tànk lañ ma gàddi leen ci biir kër gi xam nga lii metti na te li ma dal moo dal sama borom li may jànkonteel moom la keneen keneen di jànkonteel ci carte bi metti na torop amuñu robinet amuñu dara ñu ngi nii jàkka ji ñu julle mag ñuy jullee sax gis nga ko mag ñi duggatuñ fa fu nuy jaar amuñu fu nu jaar metti na de loolu la ñuy dund. ñoo sonal fan yi ñaari fan yi taw ba jeex te fii daa wóorul dara dara dara dara dara ak xale yi wóorul solution daal moo buggoon nañ ko si wax dëgg léegi mot euh, un mois waaw ndax taw bële la woon taw bële la woon dañoo xamul pompe wala daal lu ko mën a lu ko mën a jëlee fii daal lañ bëgg moom. non non non gis ñu ko ku ñu ko pomper rek na ndox mi dem rek loolu moom mooy suñu kii. quartier Moussa Fa Moussa Faye ah bi taw bi commencé ba léegi. c'est vrai ndox am na presque un mois mais na aussi monsieur le maire def na tuuti jéego premier taw bi nag le maire était venu avec sa liste bi jël nañu location yi nekk ci ndox bi yóbbu leen indi aussi ay pommes bu vidé ko à chaque fois c'est à la pluie il faut moo augmentation le temps pêche nag aussi yàlla moo indi taw kenn mu dara dañu def li mun ku ni mun a jàppale nag pour mu gën a moyen gën a évacuer loolu la loolu la waa quartier bi di ñaan quartier ñi ngi ñaan autorités yi ñi gën a jekke ñi nga def effort ñu ngi sali Sibi ak Sidi ak monsieur le maire Papis Diop ñun dox nañu fi à partir de vingt heures ba vingt deux heures joxe nañu fi ndox yóbbu ñu ko fale jël nañu fi ndox ko fale yàlla aussi locataire nekk fi mat nañu def neuf chefs de carré utal na à location loolu période boobu loolu la maire bi nekk nekk di def ba léegi nag sonniwul suñu njaboot ñoo nekk fii nag ndox bi metti na trop mais ndox yàlla la kenn ku jim kenn yaa dégg bu ñu sañoon kenn inondé mais yàlla boo indee rek kenn mënu ki kon nag ñi nga gërëm d'abord autorités la ñuy def effort bi def ñu ngi leen ñaan encore yi mu defa effort encore ñun ñoo xam ne rek koñ bi nag ñu ñaan yàlla yàlla ndokk li koy jëlee ci jàmm ak salaam parce que suñu njabooti la yàlla def ne aar leen parce que ndokk booy wóorul mun na indi quelques maladies parce que bu yaa sia de l'eau douce ak yeneen de la pluie ak ainsi de la de la la toilette bu ne mélangé ça peut indi kon nag loolu la ñuy bañ suñu njaboot mu lor na